wax naa ko ba taay duñu leen présenté ki nga xamante ne mooy jëmm ji toog fu nekk ñu ngi gàmmoo waaye nga ñëw fii ci penc mi nga xamante ne fi nga bokk di Daaru Moti nga fas yéenee gàmmoog lool si Modou Diagne Fada ñu ngi lay nuyu bu baax a baax te di la ziar. maa leen di nuyu yéen waa groupe seen Média ak waa TV Euh, di sant yàlla bu baax julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa fedd li suñu njëbbal sëriñ Touba Xaadimu Rasuul jaarale ko ci suñu bunt muy maam Thierno Ibra Faty euh, di sant bu baax te di gërëm di nuyu di ziar sëriñ Bassirou Anta Niang xalifa borom daarul muxti euh, di ko ñaan mu jottali ma nuyoo yi sëriñ Mountakha Bachir xalif général kulu murit li nuyu njabootu boroom daaru moo Serigne Khalid euh, Mbacke mi rakkam euh, Serigne Cheikh Assou Faye mi nga xam ne moo yore dëkk bi Serigne ginnaaw loolu ñoo sant yàlla bu baax bi ñu mayee at yi ñu passé ñu nekkoon ci gàmmu gi euh, ren tamit yàlla may ñu ñu teewee gàmmu daarul moxti ma taxaw foofu tuuti daarul moxti léegi léegi léegi ndomba que ministre des collectivités territoriales ñu proposé ko président Macky Sall gina buñ ci amé ndigalu Serigne Bassirou Abdou Serigne Bassirou Anta Niang euh, mu jaar ko ci porte-parole Serigne Bassirou Abdoul khodous ñu def ci liñ ci war a def yëpp sous def li war a def euh, maire bi ma jóob bi tey def li war a def man tamit ma nekkoon jëwriñ diñ dénk wàllu gox yi ak gox goxaan yi ma def li mu war a def président Macky Sall signé décret ne léegi Daaru Musi tuddatul Daaru Musi mais léegi Daaru Musi Daarul Muxti la tudd muy tur bi nga xam ne Cheikh na Cheikh Ahmadou Bamba Xaadimu Rasul moom la joxe woon ndigal ngir ñu tuddee ko barab bii a ah, ba ko borom sancee ba tey nag mm. ah, nit ñaa ngi naan gàmm mm. xañ na tey la ko ñëpp di def waaye fii ci Daarul ci dimanche bu jot ñu def ko ah, fii ci Daarul ci ba fi ba borom dëkk bi sancee dëkk ba léegi mm. dimanche bu jot ñu gàmm ma ngi noonu kon xam nga fii moom gàmm daf fi sax léegi nag wax dëgg yàlla dëkk bi yokku na organisation bi gën naa rafet ñu ci gërëm daayira bi nga xam ne moom moo yore organisation bi te at mu jot rek boo ñëwee nga gis fi ay yokkute yokkute gis fi ay bees bees yu nga xam ne day gën a taaral gàmm gi yaakaar naa ci dëkku Serigne Touba yi benn dëkk dàq fi gàmmu Daaru Moxti ah ñun nag wax dëgg yàlla fii lañ koy gàmmoo ndax amuñu lu dul mox Moxti eh, eh, te wax dëgg yàlla ah, bu ñu bu ñu bu ñu sañoon lu fi xew lu nekk. ñu ñu teew si fi rawatina bis bi nga xam ne mooy bisu Seydina Mohamed Serigne Touba tudde boppam xaadimu rasul borom Daaru mox ci nekkoon rakk ji ne rëkk ci Serigne Touba ti mosu koo rëkk moom itamit nekk jëwriñu xaadimu rasul kon nag ay taalibe borom Daaru ci lañu ah, fii ci pencam mi lañuy ñuy gàmmoo. mu mel ni ci pencam mi la gàmmoo gis nañ gàmm gi ni mu toll nit ñi wuy si fenn fu nekk waaye jóge fa ñëw fii ci Daaru Moxti ban message ngay lancé. ndaw ñi nga xamante ne jamono ji fi mu toll nii tembe lan ngay lancé ndaw ñi ñu toog euh, topp ndigal bàyyi ay tere. waaw xam nga suñu jëwriñ nun waa Daarul Moxti muy borom Daarul Moxti euh, ginnaaw bu mu fonkee jaamu yàlla nekk ci ndigalu kilifaam Serigne Touba mm. dafa sant ñëpp ne nañu liggéey. Mm. yaakaar naa kenn mënu ko ci woon mboolem ñi nga xam ne ñoo doon cheikh Sëriñ Tuubaa yi kenn mënul woon borom daarul moxti ci mbay tubaab bi fi nekkoon yi tamit nanguloon na ko loolu ba ñaare léeg-léeg ñu am tolof tolof ci wàllu dund dañuy ñëw fëgg buntam kon nag ndaw ñi nañu liggéey liggéey nag <clears throat> benn liggéey bonu ci lu dul liggéey bu xaraam lu dul liggéey bu nga xam ne Euh, lu mel ne sàcc la mais bu loolu benn liggéey bonul na ndaw ñi góorgóorlu te jëm dara mm-hmm. te kër kër yi mm-hmm. te dugg génn yéeg wàcc mm-hmm. euh, buñ ko defee yàlla mën na leen a dimbale buñ ko defee yàlla mën na leen a taxawu lii ñu ñuy def muy di dugg ci gaal yi euh, xañ ko indi ñàkk yaakaar la kañ li ko indi jamono ju taar la waaye nag nañu xam ne lu mu jamono tar tar tar bala nga naan naam da nga nekk te bakkan du ay fo te dem ci géej gi xaru la te xaru daganul kon ñu ngi leen di dénk ñu muñ euh, euh, sax ci di kër kër yi buñ ko defee yàlla mën leen a dimbale état bi muy gouvernement bi tamit encadré leen jàppale leen ubbi leen yeneen bunt ah yu nga xam ne dana gën a dalal seen xel ba ñu mën a toog ci réew bi mel ni si waaye faaw ñu la xaale gàmmu lañ nekk bu ma sañoon du ma ci du ma ci politique kañ na yeneen jataay buñ ko amee daañ ci gën a wax mais daal bu nit demee euh, ba ne damay jël benn embarcation ne damay dem Espagne mooy yaakaar ju tas mooy euh, euh, ñàkk lu mu def ñàkkul fu mu jëm kon nag nañ ñi nga xam ne ñoom la yàlla denk réew mi nañ ci góorgóorlu euh, taxawu leen dalal seen xel. mu mel ne gis nañu sa taxawaay bu mat ci dëkk bi di Darou Mouhty bu nga nekkee ministre taxawaay bi nga xamante ne def nga ko ba mu soppi turu Darou Mouhty ak yeneen ak yeneen yoo xamante ne bi boobu moo ci gën a tuuti. loolu moo war nekk suñu taxawaay borom Darou Mouhty yàlla may na ko taalibe bu ne am na taalibe am na taalibe baykat. am na taalibe sàmmkat am na taalibe nappkat am na taalibe entrepreneur homme d'affaires am na taalibe politicien euh, borom daal yàlla sédd na ko ñëpp kenn ku nekk nag wàll gamla sedde sédde rek andi ci dëkk bi <coughs> ndax euh, loolu rek mu am solo ñoo ngi ñaanal ñëpp di ndokkeel ñëpp di ñaan yàlla mu may ñu ni ñu ko fekkee ren ñu fekkee ko déwén <coughs> ci njiitalu Serigne Basiru Amta Niang xalif borom Daaru Moxti yàlla yagal ko fi te wéral ak cëram moom ak njabootu borom Daaru Moxti gi yëpp di leen gërëmaat di leen santaat seen liggéey bu rafet bi ngeen def ndax tamit lu am solo la ma ciy ndokkeel suma mag euh, Thierno Lo moom ak groupam yëpp ci ñi nga xam ne ñoom i tamit ci wàll gi ñu ñu taxawu bi parce que dafay taaral dëkk bi jërëjëf. jërëjëf. tubaarkàlla macha allah.